إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وأصلي وأسلم على من بعث رحمة وللملة معقدا wali adillati rusuli muakkidan wali saqalayni muhdiyan wa musaddida sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax dellu siwaat nañu ñëw pour ànd ak yéen seen émission muy émission doomi daara yi tey nag ñu ngi ñëw ànd sunu mbokk mu baax di sëriñ Maas Fall sopp dabbaax di kenn ci tele bi muy xéewal TV yor lépp loo xamante ne mooy diine ci télé bi ñu nuyu ko bu baax ziyaara ko ñaanal ko yàlla gudd fan ak wér waaye nuyu nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor télé bi di ko doxal ki ko jiite mooy sëñ Bas xéewal ñu nuyu ko ziyaara ko ñaanal ko yàlla gudd fan ak waaye nuyu directeur sëñ Ousmane Sow nuyu directrice madame Diouf waaye nuyu mbokk yi nga xamante ne émission bi bu mënee jaar ci yoon ba ngeen mën koo seetaan seen xol mën a sedd ñu ko yor di ko doxal ba mu rafet ñoom itam ñu nuyu leen bu baax ziyaara leen ñaanal leen ñoom itam gudd fan ak wér sëñ Pape Mbuub ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax di rafetlu sa taxawaay waaye nuyu bu baax nag sëñ Bira Aaw moom itam ci taxawaayam bu rafet ci télé bi nuyu bu baax nag soxna liiti Njaay ak soxna yàgg Sow nuyu itam képp koo xamante ne yàgg ci tele bi rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ndax liggéey bi du liggéeyu kenn kon buñ ko mënee seetaan mu rafet ñépp ci jàpp kon tele bi xéewal lañ ko tuddee yàlla na fi yàlla wàcce ay xéewal ba xéewal yi kenn ku ne mën cee gis sa bopp waaye di wax ne rek ñu ngi nuyu suñu kilifay diine nuyu itam suñu kilifay aada nuyu nag mbokk yi nga xamante ne dañuy safoo télé bi nga xamante ne tele yi bari nañu waaye télé bii di xéewal moom la ñu tànn saa su ne di seetaan programme am kon ñu ñaan yàlla rek yàlla fay leen gën a dëgëral seen taxawaay dolli leen wér tey nag sëñ Maas gannaaw bi ñu nuyee itam boroom xam-xam yi ne ci tele bi di fi waxtaan waxtaanu diine ñoom ñépp ñu jox leen seen wàccuwaay ñaanal leen gudd fan ak wér sëñ Maas tey euh, sunu émission bi yéene biñ ci am mooy jox ko sunu mbokku jigéen ñi xam nga ne le 8 bii passé moo nekkoon le 8 mars. te 8 mars nag ku ko tudd tudd soxna yi te kenn ku ne xam na ni kenn mënul dem bàyyi leen bari na lu jàkk ñooma bari na lu rafet ñooma waaye bari na lu baax itam ñooma te ñoom nag buñ fi nekkul woon yaakaar naa ni dara du dox kon nag jaadu na yell na seen bis boobu ñun ñépp ñu delloo leen ko sargal leen waaye sant leen ci tam delloo leen njukkal waaye massawu leen coono ndax nag li ñuy daj kenn ku ne ci ñun gis nga ko moo tax tey nag ñu ñëw pour jël émission bi jox ko jigéen ñi ñaanal leen yàlla ñoom ñépp yàlla may leen gudd fan may leen wér may leen kàttan njaboot gi ñu am yàlla defal leen ci barke te ñu fekkee seeni njëriñu njaboot kon sëñ maas foofu laa yëkkatee kàddu gi jox la nga nuyoo ak mbokk yi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan te nga xam ne nag ñoom te seetaanuñu beneen télé bu dul télé bii di xéwal TV kon sëñ Mass ma jox la kàddu gi nga nuyoo incha allah ñu dugg ci waxtaan wi. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki téléspectateur Xéwal TV yéen ñi support Xéwal TV ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaanal sunu xalifa généraux yi nekk ci réew mi ñaanal leen yàlla yàlla defal leen jàmm ñi ngeen kilifay aada yi yàlla yàlla ndax jàmm ci la lépp xaj soo nee ayu bokk ma ci mën na ràmb ak si fa tabaarakallaahu waaye kon nañ ñaan jàmm ci réew yëpp ñaan jàmm ci réew mi ñaan jàmm ci quartier yi ñaan jàmm ci kër yi. Euh, nuyu la Oustaz Arona fa tabaarakallaahu yow mi nga xam ni yaay borom émission bii nga xam ne mooy doomu daara yi tabaarakallaahu muy émission boo xam ni ñëpp a koy bàyyi xel ndax fu ma génnee ñu ne émission bi dafa am solo ndax soo nee doomu daara yi rek fa tabaarakallaahu dafa làmb lu bari ndax daara mooy jiitu ndax yàlla moo ni jàng leen waaw kon fa tabaarakallaahu loolu moo njëkk ci alquran kon nag soo fi ngay jàngee moo ci daara. kon nag tabaarakallaahu tey soo ñu invité sa émission bi nga fas yéene delloo njukkal tabaarakallaahu jigéen ñi yokk ci la ngeen lan delloo njukkal kon fa tabaarakallaahu loolu am solo la kon ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay ci sa xam-xam ak ci sa yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa kay sëriñ Maas jërëjëf ci nuyoo bu am solo bi ñu ngi la koy delloo di la ñaanal yàlla sàmm la te aar la léegi nag euh, sunu xel dana dem ci soxna Amina soxna Amina koku moy yaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay wax ne sox jigen ñi buñu amone kenn rek ci ñom muy soxna Amina bu len nexé ñu bàkku bu len nexé ñu fecc bu len nexé ñu sar xolle bu doon jigen ñi kenn rek lañu am muy soxna Amina bu len nexé ñu ñu zibile ndax nak ki fi gën. te ku am ku am teraanga ak teraanga bi mu mu teraango teraangoo kamu jur moo tax nga am ko muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam koo fi gis mu am teraanga koo fi gis mu am tedda nga koo gis mu tekki fi dara lu fi waay am mbaa nga mën ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ndax yonent bi moom la yàlla bind pour moom ku dul yonent bi yàllaa ngi la bind pour yonent bi kon ndeke kañu andil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ndax mën nañ ko fay kon kooku soxna ami amina moomu sëñ maas laa bëggoon moom itam ñu commencé ci moom waxtaane ay jikkoom waxtaane tam taxawaayam ak nañu meloon ndax xam nga ne bu matul woon li mu doom bu matul woon li mu doon melul li mu mel du jur ku mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa jigéen ñi kon ñu xam ne ndeke ñoom am nañu référence am na ñoo xamante ne ci ñoo la ñu war a roy ñooñu lañ war a teg seen i bët xam ni ñoom tuuti wuñu ndawuñu nekkuñu ay ay nit ñoo xamante ne xëy na dañoo dañ leen a gannaawal yàlla am na cër bu mu leen jox kon bu ñu xoolee ci jigéen ñu baax ñooñu liggéey fi lu ne loo xamante ne tey taarix taarix bind na leen ba àdduna tukki tey jii koy jàng taarix jàng leen jàng seen jaar-jaar jàng seen jëf kon ñooñu bu ñu leen xamee ñoom jigéen ñi bu ñu leen royee danañu xam fii ñuy teg seen tànk danañu xam li leen war ak li leen warul soxna Aminata moomu laa bëggoon sëñ Maas nga wax ma kan mooy kan. macha allah oustaz Arona tabarakallahu euh, Aminata mooy al aminatu al aminatu mooy ku wóor waaye ku wóor nag moo mën a jur ku ñu wóor moo tax mu am al amin. waaw. al amiratu mhm. mooy jigéen ji nga xam ne ku wóor la moo tax mu mën a jur al aminu soxna Xadija nekk koo xam ne fa tabaarakallaahu ku ne xam na ni jigéen bi seetlu la woon jigéen ñu maandu la woon jigéen joo xam ni dafa fekk woon ci lépp ndaxit it magasin bi nga xam ni fa tabaarakallaahu moo war a denc marchandise bu nar Seydina Muhammad magasin yi dafa war a laab dafa war set moo tax yàlla tànnal ko wayjur te ku ne xam na ni yonent bi ay wayjuram fekkewu ñu diine te nag diggante yonent ak yonent yonent yàlla Isaa moo dem yonent yàlla Muhammad ñëw yonent yàlla Muhammad avant muy ñëw diggante boobu moom la wax Mhm. Ah. fatra waaw fatra mhm. mooy dara diine amagul dara amagul moo tax ñoom su dee ci di loolu leen di àtte waaye nga gis lu yéeme ci Aminatu mooy rek bi nga xamee ni dénk nañ ko sunu bàyyi Abdullahi ba la xew xew ca ba keroog bi nga xam ni bisu alxames bi nga xam ni am na lu jógee ci bàyyi Abdullahi ñëw ci Amina ورسيل حاج من ليل العروبة حل الدور في رجل ثم المنادي ينادي مصبح الفهم muy lu yéeme loo xam ni fa tabarakallahu ak fi mu jaar bi mu ëmbee sayyidina muhammad kero malaaka bu nekk ñëw na ndokkeel amina yéen jàll adama ñëw na yéen jàll siisa ñëw na ba muy juróom-ñeenti weer kero ba sayyidina muhammad sas aarona mhm. di gane àdduna malaakaa ñëw ni ko insha allahu rabbi tey ngay am doom <laughs> te te nag est-ce que xam nga ni yonent yàlla euh, yonent yàlla Muhammad <laughs> yaayam moo ko tudd <laughs> ndax moom lañu déy tur bi sànni Muhammad Muhammad bu juddoo tudde ko Muhammad est bu juddoo koo xam ni nitu valeur la beneen bi ci des mooy li muy nekk màkk yëpp. ñëpp moom la ñu wóolu comme ni ñu wóolu Seydina Mouhamad. xam nga da ngay dégg ñu ni Mouhamad mooy al amin lu daan dénkaan nag la waaye ci yaayam la jëkkee. yaayam jigéen bu mu saan am problème sa sëy. jigéen bu mu saan am problème ci koñ ba. ci moom ngay ñëw wax moom. ci moom nga ñëw wax ak moom. Mhm. su waxee ak yow nga am solution. Mhm. te boo ci jaaree nag rek nga cay am. Mhm. muy koo xam ni fa tabaarakallaahu ku ne xam na na mu nekk woon Baye Abdoulahi. nekkoon jigéen ju sell mm-hmm. nekkoon jigéen ju yiw mm-hmm. li kay yi say yiraha mm-hmm. li durratihi aminatan naqiyat an saa'iri turami est que moom la Seydou ce que kon moo lay wax ni jigéen faible kooku nag wóor gi mu wóor muy al aminatu moo tax mu indi ñu al amin al amin ah, sëñ Mass kon jigéen ñi ñoom ñëpp war nañoo teg foofu seen baaraam ndax dégg nañu ne kon ndeke soxna Amina mi jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amna jikko yu mu amoon amna melokan yu mu yoron amna taxaway bu mu taxawé won ba motax yàlla sunu borom subhanahu wa taala jox ko kii di sangu aduna way di sangu àllaaxira muy sayyiduna Muhammad te est-ce xam nga ne Muhammad di di avant muy juddu borom xam-xam yi annoncé nañu ne eumbu nañu ko. bi nga ko ëmbee borom xam-xam yi ñi nga xamante ne maa mën lañu teel ñu annoncé ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëmb nañ ko bi ñu ko ëm bi ñu ëmbee yonent bi nag jigéen ju ëmb rek jàpp nañu moom la mu ëmb mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax keroog bi yonent bi ganee àdduna bari na ay jigéen yoo xamante ne yaakaar gu tas tax na ñu faatu ndax dañoo jàppoon ni ñoom ñooy jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon boo gisee ñooñu ñëpp ñu échec seen yaakaar tas dañoo melul ni Amina. Amina gis nga. Mm. ku set la. Mm-hmm. ku laab la. Mm-hmm. ku yaru la ku dàll la mm-hmm. waaye ku jub la. moo tax mu jur kii nga xamante ne mooy sangu àdduna di sangu àllaaxira gën ci ni njëkk waaye gën ci ni mujj kon jigéen ñi nañu xam ne képp koo xamante ne bëgg ngaa jur ku gën koo xamante ne bu waxee ñu déglu ko bu jógee ñu topp ko bu yegsee ñëpp jóg. ku koy jox loxo jox ko ñaari loxo ku ko bëgg sëñ Maas da ngay mel ni soxna Aminata mii kon soxna Amina mi jur yonent bi jigéen ñi nañu xam ne seen référence gi nii nañu ko roy Amina nekk na Makka ba ni mu génnee àdduna kenn mënu koo joxoñ baaraam kenn mënu koo tuumaal ci dara amul lenn loo xamante ne nit dana ko xool sañ koo wax ci moom lu dul lu rafet kon dëkk jigéen ñi ñoom itam war nañoo góorgóorlu xam ne seen roy royuwaay bii muy soxna Amina ñu roy ko waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu juddoo am na koo xamante ni gannaaw yàlla bari na lu mu mën moo tax bari na lu mu am moo tax ndax kookoo ko jàppale ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa loo xam jotul woon gannaawam dafa néewoon doole te bi muy juddu boobu fekk baayam génn na àdduna bi muy juddu baayam génn na àdduna mu nekk al yatim muy jirim ba laata muy judd baayam génn na àdduna bi mu juddoo tam juróom benni ak juróom ñaari at yaayam génn àdduna léegi nag amul doole jigéen jii ñuy wax soxna Xadija kooku tam sëñ Maas kenn la ci jigéen jigéen ñi nga xamante ne ay tànneef lañu te jigéen ñi war leen a jël teg war leen a jël teg leen ci seen kanam pour roy leen soxna Xadija moomu laa bëggoon sëñ Maas nga am noo ma wax ci moom. macha allah oustaz. Euh, dugg nga fu am solo ndax tey lépp jigéen la ci waxtaan bi ngeen di xamee ni lépp jigéen la est-ce que te it ki nga wax muy soxna Xadija xam nga yonent bi bu seyri nee na alifan muska wal ibadata wal xal wata tiflan wa hakaza nu jabaaw nee na ku dafa bëri wàllum daan wéetal boromam te boobu yegg xamagul ku yàlla te yàlla yónneeb ko est-ce que motax mu daan dem ca xaaru xiraa mm-hmm. di wéetal boromam eske su xëyee rek dem taxaw fa mm-hmm. di xalaat di imagine kan moo bind asamaan mm-hmm. kan moo bind suuf montagne yi mu wër kan moo ko bind yonent bi di xalaat rek saay bu xëyee rek dem ca xaaru xiraa eske bëgg xam kuy boromam ba fa la ko jibril fekk ni ko iqra iqra bismi rabbik moo tax sëriñ si Ahmed Tidiane si almaktoum yal na yàlla yokk ay leeram. Mhm. nee na baatu iqra. Mhm. bu dellu see ci ñun jàng lay doon. Mhm. waaye bu demee ci yonent bi. mooy iqra sosal daara. bismi rabbika door tabax ce que macha allah. yow Mouhamad sosal daara. a tabax jàkka. ndax bala ngaa jiite da ngay xam. est-ce que al al madaarisu qabla al masaajid. wallaahi. moo tax mu ne ko. sosal daara. door a tabax jàkk. est-ce que. moo tax koñ boo dem. Mm-hmm. gis fa jàkk gisoo fa gisoo fa daara. Mm-hmm. xamal ni jàkk jooju doxul. Mm-hmm. waaye daara moo war a jiitu. jàkk est-ce que moo tax da daan gis jumaa ju am. dañ fa benn bàyyi benn place boo xam ni. dañ fay jàngale alquran. di fa former ay nit. ndax boo amul formation. du mën taxaw ci minbar bi jiite nit ñi. est-ce que. yonent bi la fa Jibril fekk. wax ko loolu ni ko iqra su dee ci jur. mooy mhm. jàngal. Mhm. waaye su dee ci moom mooy sol daara. Mhm. daara gi nag moo tax mooy univers bi ndax yonent bi moo xam lépp. est-ce que yonent bi moo tax ñu bind ñëpp. kon koo kenn du ko jàngal. est-ce que. ndax loolu jibril am tey. ba mu audace ñëw di ko wax. ci barkeem la. wallaay dëgg la. ci barkeem la moo tax bi mu ko waxee loolu xaw koo sonal. ndax yàlla li muy jàngale foofu. mooy xam-xam bala nga koo am faamu sonal. est-ce xam-xam. Mm-hmm. bala koom faaw mu sonn. Mm-hmm. alal mm-hmm. bala koom faaw mu sonn. barke bala koom faaw mu sonn. ce que. moo tax yooyu yëpp mu koy teg yonent bi ngir ñun ñu xam ni. ñun foofu lañu war a jaar. ce que. ba mu ko waxee comme que moom. Euh, seen dëkk xamuñu jàng. moom yonent bi. mu ne ko lan lay jàng. mu sonal ko. sonal ko. ba yéen itam tegeri daa jommi. ndax daraan def moom kese di wéet di wéetal boromam. est-ce que. te boobu yàlla yónnee pour sa taroon. mais rek mi ngi imaginer ah asamaan si ni mu tàlloo. ñun suñu kër yi am na ay pieds yu ko téye. waaye asamaan si dara téewu ko. di wéet di wéetal boromam ba jibril fekk ko. est-ce que. keroog ba mu fa jugee. tegeri daa jommi daw ci ci Khadija. gis nga taxawaayu jigéen. est-ce que. moo tax soo amee sa borom kër. mu génn dem. Mm-hmm. bàyyi na ci kër gi. Mm-hmm. moo xam fajar la génn. Mm-hmm. su dikkee rek. bala ngaa def dara fexeel yi tàllal ko ba pare. bala koo laaj. bala koo wax soxla. bala koo gan gu fi ñëw. fexeel ba nga bu leer ni la. dal na ba pare. daanaka kon ndox waaw kon kon kon yonent bi sall sallam bi mu génnee. waaw kon soxna Xadi di génnul kon kon dafa ne ci kër gi. dafa ne ci kër gi génnul su fekkoon dafa génn. kon su mm. demee yonent bi am problème. waaye dafa toog ci kër gi. Mm-hmm. te nag xam nga ni Khadija. Mm-hmm. moo ëppoon alal ci mag. ëppoon fa personnalité. Mm-hmm. ñëpp jox ko cër. góor yi màkk yi ku musaana ñëw ci moom rek. mooy jàkkaarloo sa da ngay sëkk. est-ce bi sàkkuwul. ngir nekk borom këram. moom moo sàkku. ngir nekk soxnay Muhammad. Ah, kon amoon na ñaari jëkkër. Ah, kon foofu sëñ Mass dama fay déggee ni kon. jigéen bu fekkee gis na góor goo xamante ne am na yaakaar ni kii moom bu ma solee sama daal la dox ba yàlla jox ma ko am naa yaakaar ne danaa am ci moom lu baax kon borom war waruta am kersa ci dox diggante jëkkër jooju pour mu nekk jëkkëram. dëgg la amul ci am kersa. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko waxee. Mhm. kon ndeke du moom moo ñëw ci xadiija ne ko bëgg naa la. xadiija moo ko gisal boppam xam ne li muy wër ci moom la ne. waaw te ndax nee nga ñaari na ñaari jëkkër. ñaari jëkkër. ñaari jëkkër yooyu bi yàlla weddee. Mhm. dafa toog nag téye mor sa njàmburam. Mhm. te nag jigéen du yàkkamti. boo toogee téye sa mor sa xam sa bopp. Mhm. li nga bëgg dana ñëw ba ci sa say tànk. soxna Xadiija kon foofu dañu fay jàngee ni ndeke bi mu amee ñaari jëkkër yàlla weddi. as maanaam moom jëlul boppam rekk euh, wanteer ko. te màkk. ay ndaanaan a fa nekkoon mm-hmm. waaye moom nag dafa bokkoon ci jigéen ñi mun góor mm-hmm. ba moo tax ñi ñeme a wax ak moom sax danga leen di lim mm-hmm. moom nag xam nga jigéen am na nu muy mel toog ba mu ne la bëgg naa la moo gën a yomb nga dem ci moom di ko wax ni bëgg naa la bala mu lay toroxal maas waaw dëgg la xam nga góor du bëgg jigéen day bëgg ñun li doxoon mag ñu njëkk ña mhm. suñu waajur njëkk suñu mhm. maam ya mhm. ñu amoon sens mooy dañ daan wër foo xam nañ fa am jiwu bu baax Xadija nag loolu doon wut ci Muhammad ndax ñaari jëkkër yi ma jot am ñëpp dañuy ñii gisuma ci ñoom li ma bëgg waaw léegi sëñ Mass euh, soxna Xadija ak Muhammad ku mag soxna Xadija moo mag ko vingt cinq ans que magee na ko sayyidina muhammad est-ce eh, hmm. eh, ndax yonent bi khadija ko mag hmm. ndax bi muhammad khadija boobu mi ngi am 40 ans hmm, est-ce est-ce kon nga gis ni tamit jigéen bu la sharia bañu ada aada bañu ko khadija bi mu muhammad nak. xam ni kii ku yiw la mhm. li mu bëgg mën na koo am ci moom mu gis ni su àndeek ay moromam mhm. ñépp ñu ngi ci yëfu caaxaan mhm. moom mi ngi xool di weetal boromam mu fexe ba Xadija bi nga bàyyam ne dama bëgg nag nga wuti dem ci Xadija mu wut fa liggéey ba mu duggee ci kër mu ne alhamdulilah boole ko benn ndiigam moom la wax mbindaan ce que moom la ñuy wax mbindaan mooy ki nga xam ne day wër di mbinduwaan di wut lu ma am ndax kuy liggéey ci bërëb rek mi daan nga fa. est mook baatu. Mhm. taalib ñoo yem mooy mhm. taalibi. Mhm. mooy kuy sàmm. mbindaat lu muy sàkku liggéey weer bi dee jël salaire am bi lu muy sàkku xam-xam taal bi lu muy sàkku barke taal lu muy sàkku xam borom bi loolu amee gudd na temps bi duñ ko ma histoire waaye ci gàttal rek mu wut ko ko topp mu jox ko marchandise. Mm-hmm. ku ci nekk bénéfice bi. Mm-hmm. daan nga indi cent mille francs. Mm-hmm. mu jox yonent mu dem. waaye ci yoon bi. gis nañu Seydina Muhammad. fu mu romb. mi ngi gis garab yi di ko saabaal. moom Muhammad wa sallam. su bëggee gis boppam. su demee làqu garab yi ñooy wër. ba nekk genre toilette. yonent bi gis boppam. door ko ne. su demee di jaay nit ñi suñ commencé onze heures di jaay mu commencé onze heures mm-hmm. ñii une heure jeexal mm-hmm. moom midi mm-hmm. mu jeexal ba pare bénéfice am gën a bari bi mu ñëwee ci gàttal mu nettal lépp soxna Xadija ko kii kat man lii yéem na ma ci moom mu wax ko mu ne kon kii la nu wër kii mooy sang àdduna ak àllaaxira est-ce Mm-hmm. muhammadun mm-hmm. sayyidul kawnayni mm-hmm. wa sahalayni wal farihayni min xurubin wa min ajab wa min ajab mooy sangu àdduna ah, kon nag sëñ Mass euh, a ngi noonu kon ñu jox ko jigéen ñi waaw ba tey bi mu dikkee ah. ba mu jigee ci xuntuma ma dëpp ah. foofu ñëw ci xuntuma foofu laa nekkoon waaw ba mu dikkee soxna Xadija moo ko dalal ndax daa dikk ni zammiluuni sàng ma mu ne ko lu xew mu ne ko zammiluuni yonti bi kul xalija ni kul xew mm-hmm. mu daw ko mm-hmm. mu ne ah amna de lo xamni mm-hmm. dan na ka def gis ci mag moy malaka malaaka gis awra to boppu jigéen awra la mu dindi bi dal mu tegat kaalaam mu ne ko ñew na ñew na yu mu xamni kat kon li mbir la dem ci set kat gesane kat mu laaj ko mu ne ko kii kat. <laughs> la daan dikkal yéen yàlla Moussa moo ko dikkal. <laughs> maa xaaral mu Moussa Moussa. la daan dikkal yéen yàlla Moussa. moo ko dikkal. <laughs> kon kii dina doon ak a neexoon nag. ba fekkee jamono ji ngay génne màkka. waaye du ko fekk. ndax gis dinañu dañ ko génne fii. xale yi ñu ko amoon ah, ko wax. noonu la Xadija def. est-ce que. Xadijatu sakkana. bil xalbiqa ilatan. lam yusika allahu fi daarin laa tadri kon foofu sëñ euh kon bi mu delu se ci kër gi mom yonenti bi danaka dafa janaxé andutuk àndut ak sagom waye bi mu delu se fekk na fa soxna so xamantene soxna su mat soxna la moo soxna si bi mu yegsee fekk ko fa lamu mu jàppoon ni moo dal soxna si bi mu xolé daf ay pexem moko wax ni yow li nga jàpp ni moo la dal do mom moko wax ni yow yonent bi nit ñi di xaar muy mujjantalu jamono nar a ki nar a ñëw yow lay doon kon ndeke moom soxna Xadiija moo ko ko wax gannaaw bi mu demee ci ba maanaam euh, euh, mbokk moomu nga xamante ne moo ko seetal ba wax ko ko bi mu dellu see ci la ko ko wax léegi foofu lan lañ fa mën a jàngee dañ fa mën a jàngee ne kon ndeke jigéen war na nekk koo xamante ne fu borom këram jaaxlee mm-hmm. bu ñëwee war na koo dëfal war naa fexe ba li ko jaaxal mu dindi jaaxle bi moom ku jigéen ki bu fekkee mat na li mu doon waaye nag li ma gis ci jamono léegi am na ay jigéen ñoo xamante ne sañ maas léeg bu doon ñoom la boo ñëwee ci ñoom dañu lay wax ni dangaa ngaa taxawaalu woon ba li la dal dal la tànk nag bu dul toog dana dëgg lu ne xam nga loolu nga dégg ko waaye moom soxna Xadija bi yonent bi ñëwee rek mm-hmm. automatiquement li mu njëkk a def mooy def ko defal dalal ko taxawu ko ba xelam dellu si mu won ko ni nag lii du dara ndax yow la nga jàpp ni moom la du moom ndax yow yonent bi yow doo torox mukk ndax yow yaa ngi nii kuy jokk mbokk nga ku mën a rafetal nga ku mën a defar nga lépp lu baax lu ne daal lu mu xam ci yonent bi keroog wax na ko ko kon ne ko yow rafetal xol yow yonent nga yow yaay Muhammad yow la yàlla yónnee kon gis nga foofu tam leçon la boo xamante ne jigéen ñépp war nañ koo jël jël ko ci xadija mii xam nga xadija moo ëppale yonent bi wërsëg mais jaayu ko ko moo ko ëppale wërsëg mais jaayu ko ko am na ay góor yoo xamante ne tey jii bu ñu amee jabar mu ëpp leen wërsëg moom monsieur d'accord ngay doon maas waaw ah, monsieur d'accord ngay doon lépp lu ñu wax rek moom lay doon boo ko nanguwul boo moytuwul maanaam da ngay moom kay li ma bëgg ngay def mbaa nga abal ma yéen daan wax ni. xadijatun ummi. baada ummi waaw xam nga li ko waraloon maas. xadija ni mu taxawoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mënu koo fàtte ndax yonent bi bi xadija génnee àdduna dafa triste dafa jaaxle dafa jàpp ne kii nii kenn mënu koo remplacer ci moom moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi xadi bëccëg yaay lay doon ci moom. bu guddee mu doon soxnaam lépp Xadija def ko ni man ak sama sama alal yëpp yaa moom xam nga ganaar ak ay na ne ma ki cuucam ku ko moom borom ganaar Xadija dafa ne ko woon lépp sama lépp yaa ko moom moo tax Xadija yàlla suñu borom subhanahu wa taala dogal na ni yonent bi da doon toog sax di waxtu di tudd Xadija fekk Xadija génn na àdduna ba tax man naa wax ni tey ay yaxam fënax na mm-hmm. waaye fu yonent bi toog rek di man di tudd Xadija di waxtu ba benn bi soxnaam soosu mm-hmm. nga xamante ne mooy soxna su ndaw soosu te joŋe muy soxna Aïcha nga xamante ne moom yonent bi soxna yi mu am yépp kenn benn kenn rek la ci takk muy jànq mm-hmm. ñeneen ñi ci des ñépp bi mu leen di jël ay jéeg lañu mm-hmm. soxna Aïcha nii nag moom bi mu koy jël ndaw la moom nag moom moo nekkoon seytaaneem bu fekkee sañ nañu koo wax soxna soosu lu ko kenn ñemewut a wax moom yonent bi soxna Aïcha moo ko koy wax xam nga lan moo ko waraloon soxna aisha dafa bàyyiwul won góor ni yobul koko nangul won góor ni yobul koko ko gis nga moom wattu na ci hadith yonenti bi lo xamantene bari na ay sahaba yu andon ak yonenti bi wattu wattuwuñ ko motax mu nekkon borom xam-xam faqihatun adda warde qad rawat xabara moom la Seydil Xaaji Maalik wax fa la ci khilasu zahab dafa amoon xam-xam yonenti bi mo don wax ni khuzu nisfa dinakum min hazihi humayra sen genn walu dina jëlee len ko ci as ndaw moo tax gis nga soxna Aïcha moo doon wax yonent bi di ko wax ni yow sa màgget bi muy soxna Xadija sa màgget bi dee na ba ay yaxam fa nëx na yow xanaa mënoo koo fàtte waaye foo toll di ko tudd yonent bi ne ko kooku mënuma koo tudd mënuma koo fàtte ndax moom xadijatun ummi baada ummi ci la ko xaj yonent bi ne xadija mooy samay deuxième yaay gannaaw sama yaay di ma jur nee na Xadija mooy sama yaay xam nga góor bu demee benn soxnaam yow yaay sama yaay soxna soosu am na lu mu am na am na fu mu jaar ak moom am na taxawaay ci moom te gis nga soxna bu ne nag boo amee taxawaay ci borom këram yaay lay doon ci jëkkëram ni Xadija nekkee yaay ci yonent bi di doon bu fekkee ni soxna si mel nga war a mel taxaw taxawaay ba nga war a taxaw noonu ngay nekkee yaay ci sa borom kër sa borom kër bu boobaa lu doom bu doom jaaxlee bu dawee ci ndeyam lay wuti kon sa jëkkër moom itam bu jaaxlee ci yow lay daw wuti kon moo tax Aïcha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ni man Khadija sama gannaaw ndey mooy sama ndey mm-hmm. te Khadija nag macha allah rabbul alamin képp ku def dara sax sëñ Mahamad sëñ Maas mm-hmm. di nga am dara juróom-ñaari bant la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am waaye juróom benni bant yëpp sëñ buub yonent bi ko eh, soxna Khadija moo ko jur mm-hmm. ku dul Ibrahim Ibrahima rek la maariyatul qibtiya jir waaye juróom benn yëpp. soxna Xadija moo leen jur ndax lan moo ko ko may taxawaayam lan moo ko ko may liggéeyam lan moo ko ko may mooy nangu mhm. ba moo tax nag moom soxna Xadija bi yonent bi génnee àdduna do benn doomam moo fi des yonent bi benn doom bi mu bàyyi gannaawam doomu Xadija la mhm. kooku mooy Fatima boo déggee di jigéen du nekk xalifa mhm. ah du du Fatima mii Fatima mii moom moo bi yonent bi demee Fatima moo des tey serif boo mën a gis sëñ Maas ak sërif bi nu mu mën a nu mu mën nu mu mën a tudd ak nu mu man a sant ci soxna Fatima nii la jóge te Fatima nii nag yoon Xadija moo ko jur kon gis nga nit ki boo nangoo wala fi nee nañu nangu jël la ceru ceru bañ képp ku nangu ku ne ka bañ yàlla dina la jël jox sa jox la sa cër jox la cëru ku bañ tam nga boole ko ci kon tey émission bii sëñ Mass jigéen ñi lañ ko jox te jigéen ñi nag danaa la xamal lenn sëñ Mass ay jàmbaar lañu bari na kër yi fi ne ñuy añ di reer di ndekki jigéen ñi la xaw ma ndax xam nga ko señ Mass ci lu wér yoo xam ne moom surtout jamono jii ñu ne jigéen ñee waaw waaw moo tax nag ñu jar a delloo njukkal la te benn bi ma lay laaj mhm. boo génnee suba commencé ko ca tali ba fa maanaam ca Seras mhm. wala fa dëkk ba yem mhm. ba dakaar nga topp tali bu góor buy jaay màndara di nga ko gis déedéet jigéen dong jigéen fa avant fajar nga leen di gis ñoom ñëpp jigéen ñu bari avant fajar nga leen di gis ñu jóg am na ci ñoo xamante ne fii la ñuy xëyee Dakar la ñuy jaayee jee bu ñu jaayee ba àggal ci oto yi la ñuy jël ñibbi si doog a doog a togg añ. ñuy dem jënd jël ah. dem marché Sam jaay ko yónnee ah, xam nga lan moo ko waral maas. Mm-hmm. gis nga jigéen dañoo am jom. wallaahi gis nga góor bu mettee mu daw mais jigéen ñi nag bu mettee ñu toog gis nga njaboot gi. Mm-hmm. góor bu amee jigéen njaboot. Mm-hmm. bu mettee xam nga góor ñi léeg-léeg dañuy démissionné ni sa maanaam sa sa doom yi gis ko sax boo seetloo saa boo déggee góor ñi sama doom ji rek xamal ni neex na. waaw bu neexee ñu soog a wax sama doom ji. waaye bu naqaree sa doom ji même bu bi mu nekkee ndaw tolloo bul fenn bu jooyee lu lu góor ñi lu ñuy wax kaay jël sa doom ji <laughs> sa doom ji mu ngay tànqal moo tax bu neexee mm-hmm. ñu jël ko bàyyi jigéen ñi waaye bu naqaree ñu puus leen ko mm-hmm. moo tax jigéen ñi. dëgg-dëgg bis bi ñu leen jox dafa tuuti waaw benn bis ci at mi dafa tuuti bari na tey ji grand place yi ngay gis ci dëkk bi grand place yu jigéen gis nga ko maas grand place lan ay góor yu kese ñoo fay wallaahi góor <laughs> ah, kon jigéen ñi góor ñëpp moo tax bu seen bis yi ñëwee kenn ku ne yow la ñu war a jox siwo bi keroog nga dem marché bu boobaa di nga xam lu ne ca marché ba bari na luñ la tegal ngay ngay añ. Hmm. wala ñu tegal la ko nga reer hmm. buñ la waxee fa ñu jaar ba ba def ba tegal la ko di nga xam ne ay jàmbaar la ñu maas hmm. xam nga ñoom li ñu gën a bañ ci àdduna xam nga mooy lan ñu togg hmm. ba yekk taaj te kenn lekkul moo tax loo leen mën a jox ci àdduna bu manqué itam fa ñu mën a dugg ak pexe ya ñu mën a def ba tax mu neex ba buñ ko dajee nit ñu lekk danañ ko def wallaahi moo tax léeg-léeg góor yu baa doola am na mhm. léeg nga gis góor ñoo xamante ne amuñu yar yëkkati lu ndaw sànni leen ñu dem débrouiller ba toggal la ñëw yekk la jox la nga lekk ba pare sànni bool bi ne leen li nga togg neexul moo tax sëñ Mass mhm. jigéen ñii mhm. euh, alhamdulilah sunu émission bi nag doyul ndax am nañu ni ñu amee référence ci kaw ah. lañu amee référence ci suuf waaw à lay doon insha allahu rabbi kon nag Euh, yaakaar naa ni gars yi duñ ko rate mhm. te jigéen ñi nag bii ñoo ko moom bii nag maanaam émission bii ñu leen jox war na tax ñu xam ni seen télé bii tele bii di xéewal TV mooy seen télé ndax bii nag moo leen jox waaw kon nag euh, sëñ Mass ma delloo la kàddu gi rek ñu tàggoo insha allah di la gërëm nag sëñ Mass ndax ñun ñoo sàkku ci yow pour na nga ñëw nga jàpp ci émission bi ndax nag émission bi doomi daara yi la comme émission doomi daara yi te ngay doomi daara mhm. balaa may woo benn doomi daara yow laay njëkk a woo te nag yow yaay borom kër gi kon nag te dañuy wax ni kuy wañ ni boo gis ci benn lay commencé kon tey woo nañu la bu ëllëgee incha allah yeneen doomi daara itam ñu invité leen ñu ñëw bokk ak ñoom émission bi ndax lu ñëpp bokk kenn ku ne da nga ciy jël sa wàll seen maas. macha allah jërëjëf Oustaz Arona ñu ngi lay sant di la gërëm. Mm-hmm. di la ñaanal yàlla yàlla ndax ku ñàkk ki ñaan fa tabarakallah suñu mag nga suñu kilifa suñu conseil nga <laughs> loolu lu ñu dañ di ko wax euh, depuis ci rajo Sud FM mm-hmm. tabarakallah lu ñu def dara te diisowuñ ceeg yow lu mm-hmm. ñu wax dara te diisowuñ ceeg yow mm-hmm. fa tabarakallah ñaanal la yow na nga sàmm amiin la aar waaye di wax na rek ngeen teg foofu seen barab sa aar dina ñëw ak ñeneen gën a continuer ndax fii dafa solo point am solo la ndax lépp jigéen la boo demee ba alquran daj sóoratu Rijaal doo ko gis rek ngay gis waaw tabaarakallaahu mhm. kon nag ñoom ñoo ko yelloo mhm. ñoom ñoo ko mën a am mhm. ndax it soo gisee yonent ba ki ka nàmp sax muy xalimatu xool keroog rek li mu daj ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba keroog opération yi ñu opéré yonent bi yëpp alam nasrah laka sadrak la wada'na anka wizrak wa rafaxnaa laka zikrak ba yàlla ba péeri dënn bi génne ci lépp loo xam ne lumb la boobu ma nga nekk ca nga xam ne mooy xalimatu saabiya ak conséquences yi mu daj mhm. keroog ba muy nàmpal yonent bi mhm. ñëpp daw yonent bi moom moo dikk jël engagement nàmpal yonent bi mhm. ndax amul bàyyi amul yaay gisul kenn am ñàkk nañu waaye xalimaa nga jël kon gën a ah, jaañ euh, sëñ Mass ñu jaale ko yow waaye jaale ko umma ummal islamiya bi waaye jaale ko waa Grand Thiès jaale ko waa Mbour góor gu mel noonu Baye Alhaji Daouda Diagne te nag maa ngi ñaan képp ku seetaan télé bi seetaan suñu émission bi boo déggee sama njaal mi nag ma jàngal ñetti qul huwallahu ahad ñu yónnee ko suñu baay boobu muy Baye Daouda Diagne def ñu fonkoon sëñ Mass daf ñu bëggoon dafa nekkoon ko bëggoon daara bëggoon lislaam koo xamante ne diine rek a ko ñoroon waaye nag waa këram itam ay jàmbaar lañu listam la bind xool ay nitu boppam def ci seen tur def ci seen numéro téléphone ne bu génnee àdduna nañ ko woowal ñii nañu ñëw taxaw ko man ci ñooñu laa bokk sëñ Mass kon loolu sëñ Mass dara gënu ko neex kon vraiment suñu baay boobu baay alaaji daawuda yàlla na xippee aljanna yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko waaye nag suñu gars yi réagir ñi nga xamante ne ñoom ñoo taxaw ba alhamdulilah suñu émission bi mën a jaar ci yoon maa ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér yal na leen yàlla sàmm kër gi tam di këru xéewal yal na ci yàlla dolli xéewal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu